wàccaayu màggalu Touba ndax woote Serigne Touba moom de yamul ak benn woote ñu ñaar nag ñu def ko ci wàccaayu màggalu Serigne Touba gi di si woo mbokk taalibe yëpp ñu waajal màggalu Serigne Touba gi di ñaan yàlla yàlla nañ si dugg ak bisimilah rahmaani rahim yeggale ko ak alhamdulilahi rabil alamin te lépp ànd ak tawféex waaw di ñaanal yàlla sëñ Muntaxa xalif général des mourides yàlla guddal fanam may ko wér ba li mu naal ci liggéeyal ko maamam yàlla defal ko si lu kawe njortam loolu itam lañ koy ñaanale xalif général des Baye Fall sunu borom guddal fanam may ko wér ba li mu fas yéene liggéeyal ko Serigne tubaa sunu borom defal ko si lu kawe njortam. nag ci bisu sëriñ Touba gi nu waajale ko màggalu tuubaa gi di woo ñëpp ñu ànd ak dal. ak teey ñëw màggalal sëriñ Tuubaa bisam bii ndax bis bii sëñ bi dafa di bu doy waar bis la boo xamante ni keroog bi sëriñ Tuubaa di dugg bureau bi ci ndar gi lislaam lañ fi doon néewal doole lislaam lañ fi nasa xaloon la mu wax ni maay namba dalul lislaam bis bii la feeñ ci le 5 septembre bis bisu le 5 septembre bii la sëñ Tuubaa wane ni moom mooy lislaam la wane ni moo téye drapeau lislaam ci bis boobu la bis boobu nag lañ koy màggalal fii ci ndar di ñëpp ñu xamal leen ñoo ngi suñu waajaayu ñaari rakk yi ren nag sëñ Mountakha mu baax mi dafa wax ñu def ko waajaayu màggal moo waral yenn gan yi war a ñëw yëpp ren ñëw gi moom day xaw a wàññeeku waaye nag dem nañ samedi waxtaan ak sëñ Mountakha moom mu jox ñu ndigal di nekk ne waajaayu màggal ndax ne euh, bu compter màggal gi mu jublu moom mooy ñëw waaye di leen yebal sëñ Mountakha tàqe li nga xam ni mooy turandoom te moom la jox euh, benn doom bu jigéen mu koy denc di yebal mu ñëw fi. waaw am nay gan yu ñëw nag waa Gambie ñoom ñëw si yoon di ñëw ñoo war dal lycée PDL bi am na ñeneen ñu waa Saatol yi ak Ross Sénégal Ross Béthio ñooy e dal Palambodj ak Saasumaan ñoom ñëw si gan yi waaye ni mu daan amee moom ah du ko amee ren waaw mais waa kii Mboro yeeg ñu war a dal Genda ak Taïba Ndiaye ñooñu itam ren ñoom ñëw gan daal dina wàññeeku waaye ñun ñoo si wàccaay gi wàccaay safar daal lay ko def wàccaay safar lay ko def si ndigal sëñ Mountakha mu jaar ak suñu président Ahmed Fall bi amee kuréel ñaari rakk ñu ngi nuyoo tey siyaar di nuyu mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay te di leen ñaanal yàlla jàmm te koy saaku ci yéen di ñaanal sëñ Mountakha Al Bachir mu yàgg ci yoon wi yàgg ñuy jiite yàgg ñuy digal ñuy def yàgg ñuy tere ñuy bàyyi di sant murit yëpp ci safar gi nga xam ni moom la ñu bokk di weeru mbégte di weeru jaam yàlla. di weeru tuub ak jéggalu ñu koy sant sëriñ Touba bu baax a baax a baax nag moom mi nu ci boole ñoo ngi woo ñëpp nag ci bis bi nga xam ni mooy bis bi nu Serigne Touba jagleel di bis bi di bisu safar di le 9 septembre ñu fas yéene ko def fii ci Saint-Louis noor fii leen ko fas yéene màggale ànd ko ak jullit yëpp defe ko nag ni nu ko sëriñ bi diggale jaamu yàlla ak berne ginnaaw kaamil gi nga xam ne sëñ Muntaxa moom lañu digal ñu ñu fas yéene ko ci def jëfe ndigal lii rek ñu jëfe ndigal yi fas yéene ko ci def insha allahu rabbi bis baa ngi noonu maa ngi ci tàllal loxo ñëpp di ci woo jullit yàlla yëpp di sixième édition bi ñu ciy sargal Cheikh Fallou njàppandal di jàmbaaru borom badar gi du ko ci delloo njukkal di ko ci jox wàccuwaayam yëpp ànd kook jullitu yàlla yëpp